ku ci nekk boo gisee sa morom mu dellu la mu dolli la ak ñaax dolli la ak yokku ndax xam ngeen ni nit yi mooy def ci nit lu mu doon moo tax mu ne war a fatu waaye ixwaan lu muy mun ma aloo bi sirqin fil uxuwaati muy jaam ñoo xam ne dañoo dëggu ci mbokk boobu ñu mbokk mu ne nag kon lawul mahfuz ma waxoon jaan bi dana ko xam ba nga xam ne Imaamul Xasaali nee na mu bind yi demee mu demee ni ki ci wattu alquran ni xaraf alquran yi nekk ci yuuram gi noonu la bind yi nekkee ci lawxul mahfuz Sëñ Tuubaa nag digal na kon ni nga nekk ci yàlla ba bëccëg ak foo toll bàyyi ko sa lépp jox ko sa lépp jaam ñi nga bokkal nekk ci kaw suuf wax na la nan ngay nekkee ñoom moo di nga xool leen ñaari bët bëtub xaqiqa ak bëtub sharia bëtub sharia mooy lang mooy nga di leen digal aw yiw di leen tere lu bon di ci sonn di leen laabire ci lépp loo leen xamal ci lu leen mën a jëriñ nga wax leen ko di doxante ñoom ak mbokk di jokk mbokk ànd ak ñoom ci zahir képp ko ci xam ni kii nekk na ci lu dul noonu nga tong ko ngir bëgg mu jàjj ba dellu fi di ko dimbali itam koo ci mën a dimbali nga dimbali ko ngir jëmm yàlla kooku mooy bëtu sari ak bëtu xaqiqa bi mooy lan mooy lu ñu la def ci lu bon nga muñ ko nga muñ seen lor ndax xam gi nga xam ne yàlla moo leen di forcer ci li ñuy def maanaam lépp lu ñu def coobareel yàlla la yàlla moo leen ci xiir ndax nee na war nga gëm ne mbindeef yëpp buñ dajee woon ñoom ñëpp bëgg laa lor lu toll ni bën bën poussé te yàlla du sotti mukk naka ñu daje ñi ci ñëpp ngir bëgg laa jëriñ lu toll ni bën bën poussé te yàlla mu ko du sotti kon nag lépp loo xam ne yàlla dogal na ko jaarale ko ci jaam bu deelu la naqari mu def la ko ñun loo ko mere mere ak loo ci na nga ci sàmm xàq yi ne fii kat li mu def yàllaa ko dogal loolu muy bëtu xaqiqa ngay nangu kon ngantam te nga ñàkk sukkandiku ci jaam ñi sukkandikul ci yàlla waaye bul sukkandiku ci ñoom وتحسن بنا ويا أخي الغيبة والرياء مع العجب والعسد والكبر دعا وآدم الرحمة للإنسان وحب رفعة على الأقران وكل من جمعها أو احتوى واحدة منها فخاسر توا من يو سام بك دينه nanga nga wattandiku jëw ndax lu bon la lu tiis la na nga wattandiku njistal na nga wattandiku naw sa bopp gis sa bopp na nga wattandiku añaan na nga wattandiku rëy na nga wattandiku ñàkk yërmandi ci doomu aadama yi na nga wattandiku soppa wuuteeg nit ñi maanaam bëgg a feeñal ne yaa gën nit ñi wala yaa leen féete kaw mu ne képp koo xam ne boole nga jikko yi wala nga am ci benn nee na ku perte nga ndax yi jikko yooyu day waral sa jëf ñu delloo la ko suñu borom du ko nangu li nga xam ne nag mooy jiitu ci liy jëriñ murit moo di teggin yar ak teggin sëñ Tuubaa dafa bind ni nga xam ne noonu la murit bi war a jëfe muy teggin bi nga xam ne ne man ñi sësoon ci moom danga xam ne mu ngi leen di yar bépp yar ñu di ko roy lépp lu ñu mën bind nañ ko leetar di ko ñaan ne mu leen bindalee ci fiq mu leen di xamal seen faratay ràññee yépp bindal leen ci tawxid mu leen di xamal nañu war a fase suñ borom akub yonentam ak ci malaayikaam ak yomal xiyaam yépp ñu leen ko xamale xamal leen it ci tasawuf na leen bindal loo xam ne lii ay teggin la leen di xamal mu daal di bind nahju qadaa il xaaji bi mu ko bindee mu ne hada wa innil yawma du ijaba ba'd al muridina zawil inaba qad talabu nazman hawaata adduba li yataaddabu wa zaka wajaba mu ne na nga yëg tey ji maa ngi jóg di wuyu lenn ci murid nga xam ne dañoo dellu ci seen borom seetaat bëgg am li leen jëriñ ñu xam ko ñu xam ñuy jëriñoo ci ak taalibe xam ñuy jëriñoo ci ak topp yàlla xam ñuy jëriñoo ci lépp loo xam ne sonne nañ ko ngir jëm ci yàlla mu ne sàkku nañ ci man way woo xam ne bii teggin yëpp daf cay nekk te loolu nag lu war a war la mu ne teggin moomu képp koo xam ne sàkku nga jaamu yàlla sàkku ngaa topp yàlla wala nga sàkku lenn njëriñ te àndul ak moom daañu la xañ ak texe daañu la xañit la ngay wut mu ne ndax teggin mooy li gën ci àdduna ak mooy ndam li gën ci àdduna ak ndax day leeral xol te day jegeel nit aljana naka nonu lay warale say dëkkaale tagg la yalla ak yonent bi tagg la sori lay itam safara mune ba lolu amé ma daldi juk yakam yàkkamti and ak gaaw ci bi len tontu te ma ngi yaakar ci gin yi ma len di xamal sun borom dolli ma ci ngeureum te dolli ma ci itam ay tiyaba mu dal di nak ñi ci tariqatul adab rahmatu saghir kal abi wal ummi wa tawqirul kabir mu xam le ne yoonu teggin moy na nga yërëm ndaw nga wet mag te képp kuy sa moroom nga def ko ne sa bopp mu dal di istishhad ci wax ci irham xayyi jami al xalqi kullihim waraa'i fi kulli xalqin xaqa man xalaqa mu ne yow sama mbok na nga yërëm mboolem bi neef yépp te nga leen da di leen xool bëtub ñeewant ak bëtub yërmande na nga wet ñi mag ci ñoom te nga yërëm ñi ndaw te nga sàmmoonte ci bépp mbindeef na nga ci sàmmoonteeg àq ki ko bind te mooy suñu borom ni mu la sante bépp mbindeef nga sàkkoonte nga sàmmoonte ci ak yërmande maanaam àq ki ko bind naka noonu lépp lu ñu bind muy doomu aadama muy leneen lu dul doomu aadama loolu moo tax ñu xaraamal yàq yonent bi sallallahu alayhi bi nga xamee ne fekk na kuy jàpp di sotti ndox mu bari mu ne ko yàq baaxul mu ne ko ah naa ndox sax yàq a ngi ci mu ne ko doonte sax yaa ngi nekk ci takku géej gi di jàppit ngay tànq lu bari yàlla dana ko jàppe ne yàq la kon ndax lu tax da nga ko war a teeg xaq ki ko bind te mooy suñu borom te kon dara tuutul ndax lépp lu mu mën a doon yàllaa ko bind te yàlla mi ko di bind ko màgg la màgg yàlla googu nga ciy seet moo tax ngay sàmmonteeg mépp mbindeef mu yàlla bind rawatina nag doomu aadama loolu moo tax ni sañ Tuubaa santaane waxtu woo àndeeg say morom na nga leen gën a woyof lépp lu ñu aajowoo nga di leen ci dimbali loo man ba mel ne yaay seen ndaw donte yaa leen magit ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na sayyidul qawmi xaadimuhum ki nga xam ne mooy liggéeyal nit ñi mooy seen sang maanaam mbooloo mu ànd te nga xam ne mooy doxi yonent yi di def yi ñu aajowoo yépp mooy sangub ñooña yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mas a ànd ak kuréel ci saaba yi ñu dem ci àll ba mu yàgg bi nga xamee ne waxtu lekk jot na te ñu xiif ñu rey benn gàtt ci ne man de maa koy fees ci ne maa koy rendi ci ne man de maay féetewoo yéwénal gi yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ne man de maay taxan maay dajale matt mi ñu ne ko dit yonentu yàlla bi yow kay loolu daanu la ko fegal toogal nu mu def mu ne déedéet suñ borom sip na waa yoo xam ne bu àndeek mbooloo lépp dañ ko koy defal ndax dafa amoon waaj joo xam ne dafa àndoon ak mbooloo moo xam ne ci saxaaba yi biñ ñibbisee ñu ngi koy tagg tagg yoo xam ne ndax nee ñu moom daal fu mu toll mu ngi tudd yàlla te fu mu toll mu ngi julli te dafay saxoo koor day def nangam ak nangam ak nangam bi ko ba mu bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne waaw ana ko ko daan defal nangam ak nangam ana ko ko daan defal nangam ñu ne ko ñun ñëpp ku ci nekk daana ko defal mu ne yéen ñëpp kenn ku nekk ci yéen yaa ko gën loolu moo tax Sëriñ Tuubaa di liggéeyloo murid yi mu ne nag kon war